Mm-hmm. war nañ nga sa carrière nga wax ñu yaag Prince Art wata wat laa nekkoon doon jóob ak Bouba Ndour wëriw moo ko ne kaay produire ma wër siw ma ne ma kaay mu produire la concours xeex siburu moo nu boole muy mille artistes ma ñëw gañe ko ñu ne ku ko gañe da ngay dem tournée internationale dafa ak Youssou Ndour bi ma defee ak Youssou Ndour featuring ñu woy Massamba Thionta borom yetu xaalis moom moo tee sama loxo ne Sénégal ku doon war ndaanaan ndaanaan baa ngi buuba reconnaître sama talent ñu bëggante lool ma jox ko cër mu jox ma cër te xaw ma noonu sax taalibe Seydina Limaamu la barke Seydina Mohamed muy nit ku am personnalité ma nit ma gëm suma bopp lool nit di nga yëkkati pour defal nit mais su yàlla newul kun du nekk loxo lu ci jóg li ci dese nekk te demaguma fen ma bi ma toogee nag dégguma ko ma nekkaat ci samay mbir musique ci lay xëy ba dee parce que musique moo ma teral musique tax ma am oto Chérif indil ma oto terrain bi Chérif dina ko indiwaat ci ay nitam laa wax ci ay nitam xam nga nit ta ngay fasanteeg technique kóllëre bu génne àdduna mu jeex am mais am na ñoom kóllëre gin séq ak ñoom ba tey mi ngi am loolu mooy sama diggante maag Bouba Ndour bi ma toogee dégguma ko ma nekkaat ci leneen mais après bi ma nekkee ci leen ma xool musique léegi mi ngi yàqu mi ngi nax saay parce que euh, dëkk boo xamante ni ñëpp dañuy soo xàmmee fi kuy capp day jafe animateurs yi am ci part de responsabilité animatrices yi am ci part de responsabilité dañuy gis benn booy bu nekk ci koñ di way ñu bokk ci estaf estafam suñu xëyee moom rek la ñuy teg di ko imposer te musique léegi rafle nañ way booy déglu bay am chair de poule ñun ñëpp am nañ ay oreille musicale boo seetee animateurs yi bu ñuy anime sax pour ñu animer dëgg musique gu démb la ñuy teg kon musique bi ngi mi ngi yàqu te Sénégal puso bi warul réere ci ñu mujj ñu bàyyi concurrence bi musique du course ku si ne xam nga ku la mën fii ku ci ne xam nga ku la mën ah et puis nañ gësuwaat ñu xoolaat musique bi defaraat ko bàyyi tëkkale bi ñor bi dafa dafa gën lu mu gësam wadd parce que da ngay gis nit def dem studio ñu defal la ay filtre ba nga ba nga yaakaar ni tey kii mën a way bu live jotee ñu wax la nga naan damay soog a yokk damay def lii man maa dugg Prince Art def albumu six morceaux ci benn fan maa fa dugg 9h30 minuit sama album pare. maa dugg Prince Art témoins yi ñu doon répété moom lañ génn nii soo dexe woon ba xiif ñu tegal la sa plat préféré doo ko lekk ba ñënd bool bi waaye mooy sama plat préféré. aw mag non demee na noonu mais liggéey bi parce que dama pare am bu desel di am moo ma desel quoi lu ma waroon def ci trois mois ma def ko ci benn fan. kon kooku moom la duma ko critiquer lu ma bu ma waxee ci moom sa sénégalais nañ ma xoolaat parce que man maa ni koon ba dara doonulee dara ñëpp daw ma mes ne menteng yow laa gisoon nga woon ma yoon wi kon du ma gërëm ba pare di xalaat mais lébu laa man maa ngi dëkk ca dem sama yaay guy salaan sama papa yàq jëf lébu fukki penc ak ñaar laa du ma waye di loo suma bopp personnalité bu nekkee ci cent un milliard a ngi ci man mais sekk nag koo jegewul doo ko xam barke Seydina Mohamed sant sunu borom am na ñu def dix-neuf album amuñu kër gu mu dëkk amuñu oto bu nu dugg doonuñu ay responsabilité man ki ma way xamuma ko dama toog rek mu neex ma mu am fu mu jaar man ma way ko ci lay dund ba tey matul cinq jours lay dox fii Kër Massar ànd ak sama soxna di dem jigéen gis ma ne ma dama doon ñaan yàlla daje ak yow ak beneen waykat bu naan njóogu aafiya mu ubbi posotam la fa nekkoon yëpp xaw ma cinquante ñaata mbir mu yëkkati ko jox ma sama morceau tey boo ci teg day mel ni tey laa ko way mais musique léegi mu am kumba am ndey ak kumba amul ndey mais man xuux dàqu ma musique damay way ba dee musique moo yor sama kër heure bu ma xëyee damay way su ma woyul sax kuy def anniversaire maa la fiy defal ay vidéo nga ko yëg muy am seer de ma ci faj su may soxla relation bi mi ngi ci mais nit nag doo ko topp doo ko topp mënoon man loolu dafa ne mënoon naa way shérif li ma way bàyyi laay keneen doot doo ma keneen dootu ko fa mais du gaaw may wër kër laay kër laayen ni buntu kër gu ne ma toog fa mais maa ngi toog su ma ruq garder suma personnel néew ma du ma ñaan lu ma waay jox nag ma jël